Le Parti de la Synergie pour un développement durable célèbre son cinquième anniversaire. Créé en 2018, la S2D de Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO, fête ses cinq ans d'existence sur la scène politique sénégalaise. tey bés bu màgg la ñu ngi feete anniversaire bu parti Synergie pour un développement durable S2D yoonu naataange suñu suñu yegsee fii tey gannaaw yàlla du man mais yéen ñii la militant yi yéen yéen a tax ñu yegsi fii. À l'occasion de la cérémonie, la S2D, qui est l'un des partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Macky Sall. lan moo tax ñu ne dañu sargal son excellence le président de la république Macky Sall man yàlla dogal na bu ma duggee ci politique yàggul. ñun ñu ngi dugg ci politique en 2018 waaye buñ tàmbalee ànd ak moom ba tey dañu ànd si ngor ak teraanga mu respecté ñu lool donc ak lu mu jot def si réew mi fii Sénégal. Ainsi, à l'instar des autres partis membres de la coalition, la S2D investit officiellement Amadouba comme candidat à l'élection présidentielle. Je puis vous dire, j'irai encore plus loin. on ira encore avec vous plus vite loolu moo tax je vous demande avec vous et pour vous qu'on maintienne la flamme de l'espoir la flamme de l'engagement la flamme de la détermination C'était une forte mobilisation sur l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar Les militants sont venus des 14 régions du Sénégal pour participer à cette grande cérémonie.